bon <laughs> jërëjëf euh, soxna si damay commencer fu doyen bi terminer il a parlé de l'intérêt commun mhm. et je pense que aujourd'hui mu nuy bañ bokk parti politique ak fu mu di bokk kuréel bi mu di bokk war nañ jiital l'intérêt mooy lan être sénégalais au-dessus de tout mhm. mais euh, je pense que c'était prévisible ce qui se passe à l'Assemblée nationale soo xoolee le président a offert une belle vitrine démocratique aujourd'hui on a une belle assemblée pourquoi je le dis parce que c'est la première fois dans l'histoire de ce pays ni am autant de députés de l'opposition cela veut dire que loolu c'est une vitalité démocratique mhm. ça veut dire que l'opposition a fait un pas en, a fait un pas ça veut dire que quelque part ñun en tant que parti au pouvoir mhm. quelque part on quelque part on nous a sanctionné par rapport à ces élections législatives il a parlé d'ego quelque mhm. part il y a eu un problème d'ego mais su ñëwee Assemblée nationale man vraiment amoon naa benn xalaat benn yaakaar boo xam ne si oppo opposition bi ñëw parce que je me voyais en eux même si je du parti au pouvoir parce que par rapport à seen proposition bi ñu proposé woon mais on a vu le premier jour de l'Assemblée nationale on a vu des jongleurs de micro on a même vu un député toog taxaw si ko table di yuuxu et hier lu am démb c'est normal tu sais que ñu ñëpp nous venons d'endroits différents ku nekk day ñëw ak sa vécu ak dama ne souvent quand on a bien vécu on n'a aucun complexe c'est-à-dire que tey il a il a parlé de beaucoup de choses le doyen là il a parlé de de ce que doit être la démocratie de ce que doit être l'Assemblée nationale il a donné l'exemple en France en parlant de la Macronie moi je l'exemple en Angleterre ma xam soo ñëwee de am lu ñuy wooyee de shadow prime ministre le premier ministre de l'ombre mu am les mu am comment dire Labour Party am les les conservateurs mais tey Sénégal suñu problème le doigt à parler il faut un consensus de l'agriculture man je pense que loolu ça doit commencer à partir des jeunesses politiques c'est-à-dire que le fait de faire de la politique ce n'est pas ay volume de muscle c'est-à-dire que man gëmuma na toog di yuuxu di xalaat affaire bi xam-xam la politique c'est de la haute science mais tamit comment a été fait la sélection de certains députés à l'Assemblée nationale comme il a dit dans dans les partis politiques que ce soit le des fois où nous ne sentons pas qu'il y ait une démocratie interne au sein des partis parce que bu amee démocratie interne il peut même avoir des primaires des représentants dans les bases qui peuvent permettre nous en tant que responsable ñu mun joxe suñu avis mun joxe suñu doléance moo am ni ñu wooyee benn bulletin fiche de renseignement mais ce que le premier ministre a fait hier loolu c'est un rituel il a dit loolu dañ koy saluer mais loo xam ne tey su ma ñëwee bugg a def dara na bañ. même la plus belle femme au monde elle peut donner uniquement ce qu'elle a et rien de plus mhm. mais munoo forcer nit mu mel ni neneen ni ku nekk su mu ñëwee c'est la nature qui revient au galop man je pense que aujourd'hui il est grand temps mu am benn conseil des sages au niveau de l'Assemblée nationale mais malheureusement avec l'âge man góomu alternance générationnelle dama gëm un jeune il doit avoir des conditions pour être dans une dans une direction a ay poste responsabilité parce que soo xoolee Jean-Jacques Rousseau mu ne dans une minute ou deux d'éducation mu ne un jeune dañ ko war a éduquer mais si éducation yëpp lu gën a important c'est la formation et je pense que ñun homme politique yi suñu parti yi amuñu formation kii day ñëw ànd ak diw parce que kii moo ko neex loolu la foofu Fara Ndiaye waxoon numéro 2 du PDS à l'époque mu ne au Sénégal les gens ne sont pas avec par rapport à parce que kii moo ma neex ma ànd ak moom tey soo nekkee parti war na mun xam la mooy idéologie d'un parti politique man mu xam la mooy les mécanisme mais malheureusement ku nekk day xool lu ko indi mu ñëw taxaw si parti politique soo demee au lieu d'être un député du peuple parce que député lan la c'est pas un député du président Macky Sall c'est pas un député de l'opposition soo demee dans d'autres pays européens ils ont des circonscriptions dans leur localité tey yow soo amee problème bëgg a bind une lettre à un ministre da ñëw sama bureau na ma bind lettre bi adressée à un la République pour laaj ko ay questions mais loolu c'est une question de culture démocratique c'est une question de vécu parce que Sénégal tey tamit on a eu notre indépendance en 1960 donc comparaison n'est pas raison pour comparer à d'autres pays il y a eu des avancées mais aujourd'hui on peut dire que dans ce pays il y a eu des avancées man je salue l'initiative de ce que le gouvernement est en train de faire parce que tey gouvernement bi dafa war a rendre compte par rapport au par rapport à la population sénégalaise tey su la joxee dara war na mun toog ne ba mu fa nekk ba léegi li mu am.